Fall Kam waxtaan ak sénégalais wax leen li ñu bëgg a def ci réew mi ak naka lañ ko bugg a defee fan la ñuy jëlee xaalis bi naka lañ koy jëfandikoo ak kan lay jëf loolu la ñuy waxtaan dinañu wër Sénégal yëpp dem bitim réew tey ñëw nañu Kees waxtaan nañu ak cheminots yi waxtaan nañu ak artisans

Et Thiès c'est important pour nous ah, parce que Thiès moom mooy nekk pays réewu Sénégal parce que Dakar dañ ko jël mu nekk poche bu ndaw mu am ay nit ñu fay dëkk di fa liggéeyee nekk ci ay zone inondable mu am insécurité kenn xajat dañ koy génne jël Thiès développé indi fi administration bi yëpp nit ñi topp banque yi topp assurance yi topp ah foncier bi gën a am doole ñu structuré ay financement def ay zone d'aménagement concerté nit ñi ñëw dëkk nous pare ñu organiser le le train chemin de fer le transport personne transport pour nga xëyee Dakar liggéey dellu si Thiès sans problème ñu war a dem Mbour jaar Mbour jaar ci géej gi ñu jël Mbour def ko beneen région mais day développé réew loolu mooy indi loolu mooy indi développement nga def lépp mu am culture xale yi jàng nga def ko ville universitaire nga def enseignement professionnel loolu mooy suñu programme loolu la ñu ñëw. ci sant nee na juróom ñetti junni milliards nga ci fas yéene joo xam ne budget am na soxla. xam nga bu fekkee da nga ne man Sénégal lii laa am te ci biir li nga am nga am loo boole loo am te boole woo ko yow faussé nga calcul bi boo nee Sénégal 7000 milliards laa yaakaar ci recette xam man may nekkoon naa fi directeur loolu xam naa recette mais ci recette yooyu ngay yaakaar xaalis bi nga mën a jëlee ci suuf si ci suufu suuf si or beeg gaz pétrole boole woo ko ci kon yow li nga wax ne moom nga am mais li nga wax li moom nga am ak li nga am du benn kon nag boo nattee 8000 milliards yi ci li mu la annoncé ci budget da ngay juum te bi li mu la annoncé

donc dañuy naxaate Sénégal la réalité photographie suñu richesse yi génneeguñ te loolu nag ñeneen lañ kii nax waaye du man. président Kaba kon ñu doon wax ne yéen euh, jekkagu leen woon euh, pour dem si élection yi moo tax ngeen doon xalaat pour ñu dàq ah, ko loolu amul loolu ñaa kii la rek xam nga. waaw mais leeralal sa kàddu. waaw mais non li lay li ma lay wax loolu xam nga loolu loolu yàpp naa yàpp sénégalais la. yow sa wàllu bopp nga ne damay politique yow pare woo nga ne nañu bàyyi élection yi parce que man pare woo man Boubacar Sall cote donc mais man dama amoon pouvoir reporter élection kooku c'est un manque de respect total mais loolu ñi koy def parce que dañu tiit seen problème mooy que dañu bëggoon reporter élection yi ñoom kese ñu jàpp leen ne leen bu reporter naree am na ko ñëpp taxawee ba pare ñu régler dossier justice yi jëpp mën a bokk loolu moom loolu la ñu ragal ak ñoo xam ne dañ leen tànn ba pare ñu xam ne bu ñu reporter tànn bi mun changer donc ñooñu positionnement politique la ñu def am na nag ñoo xam ne dañu ragal loolu d' accord naa ko ne ah bu ñu reporté waa ji mun na def ay galgal mais loolu mun na am mais yow boo vigilant yi ñu fixé lépp dem conseil constitutionnel ñu joxe règle ñu dem assemblée nationale voté yëpp mën na am mais man du ma militant wu report dama ko théoriser ne bu ñu ko naree reporté nii lañ koy reporté mais man man ma gagné ba pare da koy reporté. gëm nga ne élection gëm nga ne élection yi dina jaar ci yoon monsieur Camara gëm nga ne élection yi dina jaar ci yoon.

ci yenn société lañ ko jëlee loolu mën na jaar ci yoon mënul jaar ci yoon mais dañuy ñëfé bu fekké lolu mo fi dess dañu ñefe Thiès enjeu caisse bi mooy amul projet caisse fii Sénégal bosul am un projet de développement de caisse à part tabax projet boo xam ne day jël caisse tëggaat ko amul fii kenn mosuloo ko génne ne la caisse nii la koy def peinture garab xanaa waaw peinture garab place la leen defal loolu Thiès nous devons transférer capital développer l'industrie, développer chemin de fer développer les ville universitaire développer les d'aménagement concerté ñi président sortant et sorti président entrant c'est moi c'est en avril depuis 17 ans je ko expliquer ce mot. organiser foofu lañ le futur on est dans le présent.